Eh, bàyyi waa fisc borom quarante pour cent yeeg <laughs> borom 11 pour cent yi. kon de 40 pour cent man laa xamul. waaw 40 pour cent dégg naa am na fa 11 pour cent itam am na fa. mais 40 pour cent kay am na fa moom. waaw kay moom dafa leer même 11 pour cent dégg naa am na fa. waaw ah, pour cent. 11 pour cent. <laughs> ci pour cent moom moo ñaar du du du 16 milliards. mooy 16 milliards waay. 16 la. 16 milliards fisc bi. waaw yaa ngi si naa pare naa loolu. pare naa si ñooñu demoon. non mais onze itam am onze pour cent am na onze pour cent dama ni pour cent. mooy seize milliards. Ah, seize milliards mais mais tamit da ngay yàpp média bi mais kuréel yi ku ne di wax ni euh, man am na ci mu gis non ci dossier yi presse presse bi lañ rek mais. mais mais am na yu bees fi nekk da. yan ñoo bees bees fii ay convention des jeunes reporters fii. nga Eh, ah ma wax ko. convention bi waxal waxal waxal waxal xaaral. ma wax convention des jeunes reporters. waxal waxal. ma lool cuun may ma lool avant avant avant ma envoyé ko bijou. man kay dama lay wax virement bi. quinze millions comme ça mën ko teg ñëpp ñëpp ñëpp a gis. même convention ah. millions. Hmm. waaw ñu viré leen ko le 13 avril 23 d' accord. ñu signé ko le 13 dugal ko le 13 ok. Mhm. mu am association des femmes de média. Eh. Ah, amoo gel bu nekk ci gars yi. ah, ah bon des femmes de média <laughs> est ce que bijou laa lu ah mais deux millions cinq cent. fan yii est ce que déggu moo Samb Samb Biaye nga invité leen. Hmm. léegi ñu doon def assise nationale. femmes de média assise nationale des médias. <laughs> Mhm. cinquante millions lañ leen jox. cinquante millions. waaw mais ñoom defuñu date bu bu leen ah. ko virale. waaw ah, man def waaw jox nañ leen ko. Mhm. Union nationale des photojournalistes du Sénégal. Mhm. deux millions. ñu viré leen ko le 2 mars 2023. ay sunuy millions. waaw CESTI vingt cinq millions. ñu viré leen ko le 5 août 2023. APS. APS tamit mooy agence de presse sénégalaise. Mhm. trente cinq millions. Synpics aussi 10 millions. ñu viral na ko le 2 février 2023 ñoo njëkk a jot. c'était pas. macha allah c'était pas. cinq millions. appel. appel. xaw mooy la. association des patrons. oui oui oui appel. ñu presse éditeur. oui de presse en ligne. association. waaw mooy presse en ligne bi. boobu ñaata la. 5 millions. 5 millions. ñu viral ñu viral lañ ko le 21 maanaam dëkk bi bu mu tàkkee ba pare. Eh, si leen jot seen wàll. waaw ñoom ñu ngi doon waxuñ dara de. Irak. Eh? Irak moom mooy sixième appel kan moo ko jiite. Irak mooy cinq millions. alors eh, appel. appel léegi ñii. appel maanaam dëkk bi léegi xam nga ma wax la ma léegi ma wax la ñu laal ba dëkk bi bu mu tàkkee ba pare. bu mu tàkkee pare. <laughs> bu xale yi deewee. ci doom bi waxuñ ci de. Hmm. léegi jamono jooju. Mm-hmm. ñoom encaissé nañu seen xaalis alors. bi dëkk bi di waaj a mhm. association des femmes du des médias. Mhm. encaissé nañu le 2 février maanaam Saint-Valentin bu mu desee 12 jours ñu encaisse <laughs> d' accord. non jour Saint-Valentin la d' ailleurs parce que. 14 Saint-Valentin bi quoi 14 la. jour la Saint-Valentin dañ lañ leen biiral xaalis bi. xaw ma nag lu ñu ciy def. Mhm. voilà léegi. Euh, union des photographes. Mhm. journaliste ñoom tamit ñu viral la le 10 mars dëkk bi waajoon tàkk quelques quelques mois moo ci desoon. convention des jeunes reporters du Sénégal ñoom. Mhm. defoon nañu fii journée de gala. Uh-huh. xam nga ndax loolu moo tax ñu jox leen ko. mooy Wally Seck tëggoon waaw après ñu jox Macky Sall trophée. looloo jaaxaloon ñëpp. waaw ah Macky jox la 15 millions doo ko. ah <laughs> trophée bi ah, mais mais mais mais c'est normal nag. et eh, Sénégalais ah, comme millions yàlla boo ci jëlee benn trophée joxe ko ah, baax na. ah da ngay yow da nga pense jox 15 millions. oui oui nga woote kin fat. Hmm. nga woo après di xas Macky Sall. non non c'est impossible. tey gis naa Macky di xas Macky sa tey. Mm-hmm. tey gis naa ki bu xas Macky. yi wax nee na bu bi ñu jàngal français nana nii nana naa loolu jëmul ñu fen alors que toog na fi 12 ans changé wul loolu. vraiment dama seetaan vidéo ma ne waa waaw Macky mu ngi xas Macky. ah mais quand même Macky tamit. <laughs> ngi xas ah, foofu daa xas boobu. nekk ci réew mi 12 war ko changé nga ne baaxul mu ngay waaja dem. Hmm? tamit man de ko may dama dama dama mujj jommi sax. léegi ñii. <laughs> jot nañu weccet. parce que ay dix millions trente cinq millions bu gën a ndawle bon deux millions la. te gëm naa bon ay yàlla. trente cinq millions daa mel ni presse nag moo ëpp presse. daa si ëpp est xam nga presse moo ëpp sens ñoom lu ñuy ah laal si xaalis kenn du ko laal de. Ah ah c'est-à-dire que moom secteur bi nga xamante ni. benn dañ koy baal fisc. Mhm. lenn di ko may. lenn muy am convention. Mhm. loo xamante ni benn secteur amu ko. te presse yi moo ko am. Mhm. amul kenn ku am convention. te convention yi boo ci amee go commercial bu dëgër mën nga ci am ay millions mën nga ci am cent millions parce que tey boo demee ci ministère bi mu signalé une convention de dix million nga demaat beneen ministère mu di signalé dix million dix mhm. ministères yi rek ñu ñaar deux cent millions ci benn ci ay ministères mu am ay agence mu ay direction mhm. ku la si signalé ay Lonase ay Senelec ay euh, Onas bi parce que Petros Petrosen xaw ma mhm. la poste yooyu noonu ku nekk day am da lay signalé boo bëggee léegi nag bu la signalee jàppal ne loolu nga dajal ko ci at bi loolu xaalis la bokkul ak lu ñu tuddee aide la presse. Hmm. loolu dañ benn montant la. ministre bi moo koy défendre budget ñu voté ko. su hmm. paree après ñu séddale leen ko balaa at bi di jeex. loolu jotewul également ak loolu léegi bu dee na da nga war a fay fisc ñu ne baal nañ la ko. Hmm. mooy sa ah sa yaay moom xam naa ñaan ñaan bi. liggéeyal jëlal nga nga nga nga jaaree noonu tàggatoo man daal xaw na ma xaw na ma jaaxal trop trop trop trop wax dëgg yàlla. Euh, lu ci wax maanaam yow euh, bu amee benn convention. buy dugali million. yaa nga ca biir. aide à la presse. yaa nga ca biir. te da nga def sax séparation amaana sa journal sa rajo. sa site internet ku ci nekk ak la muy encaissé. boole kook sa impôt respecté woo ko. te ci moment boobu respecté woo itam ay salaires yoo xam ne moom nga war a fay. Mm. parce que koo war a fay cent mille di nga ba moom nga koy gëmloo ne ko moom nga ko war a mën a fay. ci moment boobu bi nga koy fay dina am loo ci teq lu waroon dem ci keesu état mais lii yëpp naka nga koy dajalee di nekkaat ci problème daal man jaaxal na maanaam yow impôt impôt respecté woo ko fayoo normalement wala boog sax fayoo ko yaa ngi ay convention yu dul jeex. Mhm. direction bu nekk yaa ngi fa convention. beneen bi mooy aide à la presse bu génn. yaa ciy ëppale yaa ciy ëppale tout nga mën a am problème man daal mën na. <laughs> ah <laughs> mooy mooy daal li ñuy wax. Euh, alal daal bu judd ba gaawee mag <laughs> mais itam li ñuy wax maanaam koo ñee ñeewul boppam. malgré tout yow li nga détourné ak li nga sàcc mi yëpp teewul fu nit ñi toog di jàmbat yaa ngi seen wet di jàmbat mhm. fu nit ñi yooxoo ceeb bu seer yaa ngi yooxoo ceeb bu seer mhm. fu nit ñi yooxoo café gu seer yaa ngi yooxoo café gu seer mhm. mais lan moo lay yow kon lan lañ mën a fan lañ la mën a jaarale ba nga tekkiiti wala bëgg tam fan lañ la mën a jaarale ba nga am ay waay tey suñu patron yi tey ñoo am jom ah. maanaam jom ji seen reporter yi di am ndaw yi nekk ci terrain bi di liggéey techniciens yi di ko am yàlla xam ne ne jom jooju dee wallaay patron yi bu ñu ko amoon léegi tey secteur bi jógee fi mu nekk dem ci dem ci beneen niveau mhm. mais da nga yëg ne nag nga mën a comprendre benn nit boo xam ne investir ne wala boog itam jox nañ ko benn onze millions mais mhm. année boobu mu ci am problème ci liggéey mais cuun mi boo jëloon onze millions jox ko ne ko départal créer site bu bees nga départ un an laa la may site boobu doon boo xam nii bu ñëpp nga xam ci na moyen bi yëpp ba am lu ko toujours ci ay problème lay dégg man daal dama xamul ñàkk xam-xam la ñàkk ànd ak ay conseils yu baax la ñàkk def recrutement bi nga war a def la wala ñàkk yéene la mais toujours itam day demaat ci mbirum àq. Mhm. gis nga àq doomu jàmbur yi ku ko yàgg di dajale. barki alxuraani grim di nga yàgg di départ mais saa boo départ di nga départ dellu si. ñu ci baree baree bari ñàkk techniciens yi ñuy dajale. moo mhm. tax mënuñu romb fi ñu weesu. ñàkku seen reporter ya fa nekk journaliste ya fa nekk. Mhm. di liggéey ba tax ñu war a mën a am la ñu am ñàkk wañ dajale ci ñoom di ko lekk ci lu dul dara te di dëkkee di leen fen ak di leen fenal moo tax ba mënuñu avancer fi ñu nekk nañ fexe ba changer méthode yi changer ni ñuy doxee uh-huh. te am yéene ne seen participation ci réew mi dafa war a bokk ci jàppale ndaw ñi ñu am xëy uh-huh. waaye rek warul yem ci ñoom seen bopp naka la ñuy tabaxee seen i kër naka la ñuy takkee ay jabar naka la ñuy uh-huh. jëndee ay oto naka la ñuy naka la ñuy jàpp naa ne seen yéene war naa weesu loolu maa ngi lay jaajëfal di jaajëfal cuun Euh, xam naa gis naa fi nag Altune TV dafa mel ni moom itam bokk na jigéen ah, ah. seen i Altune TV. gis naa ko ci de. Altune TV moom moom yaakaar naa ay ay ay. 7 millions Altune TV moom xamu ñaata la doon encaissé. 7 millions bis xoolal sama loxo yi ni mu leere. Altune TV. 7 <laughs> millions la la 7 millions. xoolal sama loxo yi wonal. sama gars yi ak ma. demaguma de xaw ma ne. 2022 7 millions la laal 2024 maa suul ñaata. Althioune TV ah 2024 wax ma boo amul 30 la jëm wala 34. dama xaw ma nag suba. Althioune TV. Ah, suba maa ngi ñaan yàlla. waaw. mooy musal ma ci jubadi. waaye nag man ay jubal jubal jubanti yi. Mm. <laughs> concerne ma ay jubanti yi concerne ma. jubal daal concerne ma <laughs> jubal concerne ma waaye jubbanti concerne ma man bañ naa ko ah ok waaw mën nga jubal quoi man jubbanti nekku ci man sama sama papa dafa am lu ma jàngal daf na ma hmm. ma ci loolu lay dox daf na ma hmm. lépp loo bokk ak nit hmm. soo si waree décider fexeel balaa ngay décider ñëpp nga joxe seen avis ñëpp mu ne ma su boobaa boo juumee ñëpp ay juum jeex na man ci loolu laa ne man man mosuma jiite ba denc xaalis ba lekk xaalis xaw ma sax nu ñuy dencee xaalis. parce xam naa su ma yoree xaalis mën naa ko lekk te su ma ko lekkee mën naa yore bor donc. ñoom daf ma ne gis naa fi mango baxal ah. di <laughs> yow. pardon. Thioune jërëjëf. merci beaucoup ah mais lambar lambar yi am na fi di <laughs> gisoo <laughs> lambar lambar am na am na lambar lambar. Ah am na nekkoon ci Kouthia. mbay lambar lambar sax lambar lambar TV. Ah, ah, la la ko bee amul layam <laughs> layam. amul layam layam TV. non sax Sinap 221 laa gis si li ma ne ah mais rek ma wax la benn affaire gis nga daam mboj. Hmm. am nga média bu <laughs> ci ñetti média convention ah amul ah <laughs> ay bu si ay leer leer TV ay 2A TV amel ay dara gis gis naa dem <laughs> mu ànd ak moom Touba daa mel ni saa waaw ah déet déet sëriñ bu gaa yi wàcc nañ gaa yi yéeg bu fi kenn signé ay layam layam TV ay convention ay 2A TV ay xaw ma seen <laughs> ay seen Kaolack TV xaw ma la bàyyi leen yooyu <laughs> na ngeen signer convention média yu baax yi. ay ah, ministre boo paree. Mm-hmm. nga bañ a def Sénégal Sénégalais day mën na commencer rek waaye yeggali mooy problème bi mooy ginnaaw bi ngeen laajee nit ñi jaar yoon. Mm-hmm. nañ jaar ku jaar yoon. tëjal tëjal rek. Mm-hmm. waaye ñu tijji nag nañu fexe ba loolu. Mm. boo leen xamoon nu mu arrangé patron kii bi journaliste yi ak techniciens yi. mais dañ lay obligé force nga am lu ñu tuddee contrat. légal. Mhm. mooy yow tappale dootul amati. parce que yow di nga am salaire bu normal dinañ la cotiser IPRES. Mhm. dinañ la cotiser également caisse de sécurité sociale. Mhm. dinga am salaire boo xamante ni duñ la ko fay espèce dañ la koy viréel. ba pare dañ koy fay à temps bu ñu toppee règle bi laa wax de. Ah, dañ la koy fay avant le 17 donc madame dina kontaan. xale bi dina kontaan des fois nga xëy sa ngeen doxantu bu yàggee nga jënd oto. yàlla jaa ngi nii di taw ngay. gisoo man sànq tardé na.